semu moo yeewu fii à 10 heures maa ngi ndekki sangu ba pare ñëw nuyu ma ne ma tanti naka suba gi maa ngi ñëw génn man pour man sama defa ni dafa jënd mburu pour ndekki génn bi ma ko gisaatee néew laa gis indi nañu rapport d'autopsie bi mais nanguwuma ko liir sama grand frère non je veux pas savoir bëgguma xam naa bàyyi nii rek nekk dans le jam nañ ko jam nañ ko fu ñu ko jam ak fu ko jamul yëpp c'est bon وهب لنا بالرعاية والسعادة والبشارة والأمان ولا تحتم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبنا قبل المنان ومن القفلة والقسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبي وجوهنا يوم البعث وأعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسير صحابنا وسق الميزان بالقسنات وثبت أقدام الأشهات وسنا في وسط الجنان ماتي وأزواجي وذرياتي وأصحابي رضوان الله تعالى أجمعين ولوسع شيوخ مولانا حب ربي شيخ أحمد بن خادم رسول وجميع أبنائي وخلفائي من بعد اللهم اجعل صوابنا ما قرنا وبركة ما تلونا من كتابك العزيز هدية واسلة ورحمة متصلة منك إلى أرواح أجافاتسي وسمنيا جوف ومام برم جوف ومختار جوف وأمات جوف وعبد الرحمن موب wa ahmadou diallo wa jabinta mbay wa khady diagne wa marem silla wa matoyen thiam wa ceerno samba gueye wa ndey soxna gueye wa adja ndey ulisi wa alassane diop wa ahmadou abdoul dia allahumma ighfir lahum warhamhum wadkhilhum jannataka jannata firdaws voilà mbokk internetu Sénégal ñu ngi fii tey ci HLM euh, fi nga xam te ni euh, fii la ñu boome woon euh, Sémou Niokhoor Diouf ci HLM 4 mu nekkoon xale boo xamante ne nii euh, dafa doon yëngu ci njënd ak njaay commerçant jënd ay parfum kii yeneen bagage di ko joxe fii ci marché HLM bi euh, léeg-léeg tam mu jox ko ci particulier yi tey nag euh, ñu ngi ñëw fii ci kër gi fekk fi benn ci kilifaam mu présenté wu sëñ bi yow la. man Ibrahima Alioune Gaye laa tudd alors man doom laa ci kër gi goro laa aussi ci kër gi ndax ki nga xam ne moom mooy way dawdu bi moo sama soxna. donc euh, ñoo bokk ndey ak baay. est-ce que euh, way dawlu mi euh, Sémou Ñoxor juuf est-ce que way ay waajuram ñu ngi dund. non waajuram bu góor génn na àdduna waajuram bu jigéen nit génn na àdduna. amoon na soxna. amul soxna amul ay doom. am na amoon na fanweeri at ak juróom. moom ci lu mu doon yëngu exactement ci commerce. waa il est il était dans le commerce détaillant donc moom mi ngi woon Istanbul. alors euh, depuis quatre ans la la dem foofu alors buy ñëw nag dafay indi day def groupage conteneur alors su ñëwee nag indi ay bagagem donc euh, di ko détaillé di ko jox ci mbokku taalibe mi di ko yóbbu tamit marché HLM di ko écoulé. Euh, est-ce que mën nga revenir ci lan moo ko jotale woon ak ki nga xam te nii moo ko boom tey. bon exactement nag je ne saurais le dire en tout cas daal ñun bureau lañ nekkoon. ay 14 heures 30 minutes lañ ñu woo téléphone alors wax ñu ne am na benn xew-xew bu am HLM te xew-xew boobu nag suñu suñu rakk la dal alors euh, bi ñu ko yëgee nag donc ak suñu relation yi nga xam ne moom la ñu am au sein de la commune euh, ñu woote ci poste de santé bi nag si la ñu xamal ne ñu ne euh, xale bi daal dañ ko jam dañ ko empoignadé alors ñu ngi ko doon acheminé vers CTO alors foofu nag lañ leen fekkee. alors bi ñu demee nag foofu on a trouvé un cent sans vie. waaw tey euh, yan taxawaay ngeen ci am ak tam euh, bu fekkee ne ngeen ci am tey jii encore mm, enquête police bu dee am am na lu ci lu ci rëcc bi ngeen jot ci wala loo xamante ni tam xew na ci diggante bi wàllu procureur ci autopsie bi ci noonu lu ngeen ci am comme information. waa xam nga daal première étape bi woon moo doon euh, l'étape d'audition. alors je crois que woo nañ suñu grand frère nga xam ne c'est l'aîné de la famille muy Charles Ngop alors ñu waxtaan ak ñoom avec la police euh, beneen étape audition bi nag mooy l'incriminé mooy le gars le meurtrier mooy ki nga xam ne moom moo def jëyi bi alors moom nag euh, déféré nañ ko je crois que vendredi bi passé il est au parquet en tout cas daal li ñu jàpp daal mooy la procédure suit son cours alors euh, ñu ngi déglu ndax force reste à la loi ñu ngi déglu daal ba xam fan lay mujjee daal léegi taxawaayu njaboot gi nag naka la. waaw ñu ngi concerté wu daal ñu ngi waxtaan suñu biir alors euh, comme ni ngeen ko remarqué tey te mooy cérémonie huitième jour bi donc euh, ñu ngi def kaamil après kaamil bi nag euh, xale yi nga xam ne ñoom ñooy mbokk Baay Faalam yi wax nañu ne daal dañ ko bëgg a jàngal xasaay jàngalaat ko alxuraan après nag bu ñu paree ci lii nag je crois que nag ñun famille bi nag dinañ concerté wu xool daal ci yan tànk la ñuy taxawee ak ci naka lañ mën a demee daal ci mbir mi. insécurité bi am ci euh, au niveau des HLM euh, aussi yan grief ngeen yan ñaxtu ngeen ci am wala yan taxawaay ngeen gis ni la commune la police war na ko am au niveau des HLM. je crois moom insécurité bi moom. c'est c'est national. bon avant sax muy nekk communal. parce que li fi gis daal mooy xel dalul. mais il faut pas oublier que du benn Guinéen moo rey sénégalais ñaari sénégalais alors ñoo ñoo doon disputé après benn sénégalais bi bu ñuy wax Souleymane alors euh, rey beneen mbokk sénégalais donc euh, euh, mu xew nag lépp fii ci commune bi daal la xewee je crois que nag li alerte la autorité communale bi muy autorité nationale bi donc war nañu jël tamit seen ay matuwaay donc pour karange nit ñi karange réew mi ñu gën ci mën a taxaw daal

Alioune Sy moom mooy xaritu mu Diakhoune Diouf alors euh, te Alioune Sy moom ak meurtrier bi ñoo bokkandee ak baay te fee bi xewul ci mbedd bi xewul si suñu kër mais ci kër Alioune la xewee ci xaw Souleymane si la xewee te ñoom rek ñoo fa nekkoon entre famille donc euh, je crois que euh, le dossier suit son cours def nañ audition Alioune Sy ak ñi fa teewoon yëpp donc je crois que suupa daal dinañ am lu ñu gën a leer daal incha allah. ah xale bu baax xale bu am yar bon bu am teggin comme li ko ñëpp seede rek donc moo doon caatu kër gi bon mais du comme caatu léegi quoi alors euh, moom dafa amoon kersa si doomu aadama yi donc su doon wax sax du du xippe xool nit alors euh, mu ne ko ko am yar ko am teggin donc euh, nit ko baax la woon daal nit ko baax la nga ñu mën a wax loo waaw li ñu mën a wax daal mooy lu ñu remarqué mooy euh, mooy ñu ci commune bi lañ dëkk nu some des administrés de la commune alors euh, bi yëf fi xewee nag mooy le mercredi passé ay vers quatorze heures passées comme ni ma leen ko waxee bon nous n'avons pas senti vraiment l'autorité autorité bi nga xam ne mooy suñu maire donc euh, donc après la fi ñëw deux jours après daal la ñu dégg ni daal ñoo na présenté ay condoléances je crois que nag quand quand boo nekkee nag ci commune nekk le premier magistrat de la commune alors euh, yu mel ni dañ lay soxla ndax euh, par rapport à la procédure administrative donc même par rapport à la communication parce que tu es le premier magistrat alors euh, su amee kuñ fi rey wala ku fi am problème ak nu mu mënti demee yow da nga war ñëw donc accompagner donc la famille ñi nga xam ne loolu la loolu la mbir mi dal daal waaw donc daal loolu ñun ñaawlu nañ ko lool lool voilà euh, maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la madame Fall Ñaaña ja di mag si semu mooy sama caatu yaay. dana bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey man Ñaaña Dia laa tudd moom semu Diouf. gis nga témoignage nga mën a am ci moom ak loo mujjee loo mujjee am ci moom comme souvenir. ah li ma mën a wax rek xale bu baax bu yaru bu ma jox cër. man sama doom la parce que dañ ko doon wax kii mooy sa yaay mu may woowee yaay bu mujj gi mu naan ma tànti ñëpp moom moo tax fii ñëpp di ma wax tanti waaw moom moo tax ñëpp di ma wax tanti mosul jaar sama tur tanti rek tànti rek bu soxla waan dara sax day ñëw ne ma sa taaw bu góor bi ma ñaata nga soxla ndax yow soo ma bëggee escroquer rek nga ñëw ne ma sa taaw bu góor bi nekk xale bu am jom xale bu teel a responsable macha allah teel responsable laay wax macha allah macha allah macha allah si mu dafa yàgg bëgg business bëgg business moo tax ma yóbbu ko Turquie waaw man mii ma keroog ba ma ko woowee ne ko jox naa sama yaay xaalis dama bëgg nga voyager dafa tiit ba asthme bi jóg il était asthmatique mu ñëw ne sama yaay ah tante de woo na ma nee na naa préparé wul damay tukki mu ne ko ah, gaawal de ndax moom jikko tubaab la yor danga gaaw a gedd mu woo suñu beneen sœur mooy kii ki kii doon wax nii léegi jëkk jabaram mu woo ko mu ne ko tanti nee na jox na sama yaay xaalis dafa bëgg ma tukki kooku ne ko gaawal tanti moom c'est oui ou c'est non rek waaw si noonu lañ def noonu def ba sama beau frère bi jàpp si macha allah 2018 mu dem bu mu demee juin la dem août may dem màkka ma ne ko Zé ñaanal ma damay demool mu ma noo tant yow man war a yóbbu màkk dañ ma jiitu si yow rek mais maa lay yóbbuwaat màkk waaw si ma juf loolu la ma wax xale bu macha allah daal lii daal yaakaar bu tas la mais dañuy sant yàlla ndax lii si mu am ma de dew ma ci armeel yi mais li ñu wax daal sant nañu daal. keroog euh, ci dëj bi bees bi ñëwoon nañ fi fekk nañ fi ay euh, mbokki taalibeem ay bay Fall ñoo am ay témoignage yu ku ku maanaam liggéey ñàkku jëriñu ak jëriñ ay mbokkam ak aussi jëriñ jàmbur yi sax. rek jëriñ jàmbur fii la ñu toog di ko jëw naan jàmbur yi rek lay defar ma ne ko na ko jàmbur yi gërëm waaw c'est mu jàmbur yi ñoom ñoo le fii la ñuy toog di wax mën naa leen bàyyi leen ko séeréer say lekk xaalisam ñu duñu lekk xaalisam. loolu daal lañ xamale daal yërëm nit bëgg nit mu Diouf amul daara daara dara ndax joxe voyage bi mu mujj dem fii bi muy ñibbi amatul woon yére bu mu sol ku jóge Turquie ku xam tukki nu mu mel si yére marchandise Sémou keroog ba muy ñibbi Colobane la dem jënd tiboy ak chemise mu ne fekk mu ne man ko t-shirt bi doo ko demee aéroport demoon nga wuti yére mu dem Colobane jënd pour pour vous dire là waaw dara du des si loxoom lu mu am maye na ko. ju koy Baye Fall daa rawoon. la yore kii ko def euh, lii rakk ak moom mu kookoo ko mag sax ki def lii du moroomam du xaritam du àndandoowam waaw rakkam moo daan léppam muy Alioune si keroog bi muy ñëw bi muy jógee si kii bi kañ la ñu màggal le lundi samedi samedi la ñëw dimanche defe naa ñu màggal. samedi man la woo fii ma génn di doon xam nga boo génnee rek wifi bi day dagg jotuma mu woo Alioune si rek ki ko def lii ne ko wutal ma CFA maa ngi ñëw may jël taxi dul jot kooku man bi ma doxantoo ba ñëw maa ngi taxaw fee di ak sama benn grand mu ne ma dafa mel ni da nga am gan man doo gan mu ne ma semi moo ñëw rek ma daw ma ne ñëw Alioune si daal di dugg si mu ne ko yéen yow ak tante yoon bu ma leen doon xaar aéroport laay fanaan pour vous dire rek les relations aéroport lay fanaan daal di ñëw à l'instant T fi mu taxaw ubbi saagam si la dindi li muy dindi jox àllin si mu def ko si mbuus mu génn bi may romb ma ne ko c'est bon yow bi nga fi jógee yàggul lan ngay wut si ma ne ma tànti du ma fi yàgg weer laa fii def pal alxuraan dem naa màkk sama loxo si kaw kaaba gi la ma wax ne ma tànti du ma fi yàgg weer rek laa fii def ma ne ko ah d'accord lii waaw yaa ngi yaa léegi ne xamante ne nii moom moo toppaat du dara donc du xaritam du lenn lan moo leen jottali loo ñu mën a wax si loolu daal euh, pour wax leen dëgg dëgg rek Sémou Diouf fi mu tëdd tey bu mënoon jóg moom mooy ñëw wax li xew. waaw Sémou Diouf fi mu tëdd tey moom rek rek rek moo mën a wax lu xew man damay dégg rek ay fii laa nekk di togg añ ñu noddu di pare julli may pare julli gi wàññi gaz bi ne xaaral ma ñëw pare julli di dugg gis ku fëgga ma daal di ñëw xool mu nekk xam xam naa da doon daw xaw ma mi ngi ñàkk daal tooy xep ma ni ko mu ñëw ne ma Alioune ñëw na fi pour vous dire rek ma ni ko Alioune man ko kan mooy Alioune mu ne ko ma fii mooy ko ñoom si mu ma ni ko waaw mu ne ma dafa am ku mu doon xeexal jam nañ ko mi ngi fi si centre de santé ma ne ko xeex si mu ku mu xeexal ku ko jëm xanaa si mu dafa de mu ne ma dalal rek dalal rek nga ñëw ma fay gaz bi tëj bunt bi taxaw naa fi cinq minutes pour mun jël ku xam HLM xam ni santé sant bi soriw ndax mënatuma woon ndox gisuma si may temb nank temb nank temb nank jaar naa si koñ ba romb buntu kër gi ñu def li mu def mu dem si sant de santé bi bi may dugg ci centre de bi la inf la dégg infirmière bi naan mënuñu def certificat de décès bi parce que gisuñu ay mbokkam ma ni mu dee na kor laa njëkk dégg mënuñu def certificat de décès bi parce que gisuñu ay mbokkam kàddu boobu laa ne ma ni mu dee na ma dugg ci centre de bi gisuma kenn ku ma xam comme HLM man d'habitude sax ñu bëri xamuñu ma parce que li ma fi nekkul woon moo tax ñu bëri xamuñu ma ma daal di gis benn infirmière ma wow ko ma ni ko dafa am ku doon xeex ñu ñu jam ko indi ko mu ne ma waaw mu ne ma yow nam nga ma ni ko magam laa mu ne ma mi ngi fii ñu tëj ma ni ko tëj xanaa dafa dee mu ah yaa booy neexul de mais yàlla def na li pour vous dire lii laa ci am si mu moo yeewu fii à 10 heures maa ngi ndekki sangu ba pare ñëw nuyu ma ne ma tanti naka suba gi maa ngi ñëw génn man ma pour man sama defe dafa jënd mburu pour ndekki génn bi ma ko gisaatee new laa gis néew laa gis muy centre de santé HLM bi lii laa ci am voilà après nag laa dégg ñu naan dafa demoon di fayeekoo dafa demoon jëli ay bagage ak rumeur bu nekk daal waaw version yi bari na macha allah waaw mais man daal sincèrement parler mënu ma leen wax ni lii la fa doon wut. ah xaw ma de indi nañu rapport d'autopsie bi mais nanguwuma ko liir sama grand frère non je veux pas savoir bëgguma xam naa bàyyi nii rek nekk dans le jam nañ ko jam nañ ko fu ñu ko jam ak fu ñu ko jamul yépp c'est bon waaw. bi gën a sori. waaw mu gën a sori li nekk suñu doy na waaw. jéem xam sax juguma sax xam sama frère te na ne ma mu ne ma rapport d'autopsie baa ngi ni ma ne ko téyel waaw téyel mu ngi toog. mu di ñaan yàlla xare ka àjjana incha te mu dëddoo leen jàmm yàlla may di leen gërëm di leen sant di gërëm ñëpp famille bi ma profité si di gërëm famille bi parce que keroog biñ ko déggee ñëpp a jóg bëri man ñoom ñoo tax man jooyatuma semu parce que li ñu def fii macha allah macha allah si mu amul seen pay waaw ñàkk nañu daal ñàkk nañu nañ ko nangu man dama ne c'est son destin ndax tey jii su ko defee woon Turquie lay gën a metti man liggéey naa ci ambassade consulat xam naa affaire u transfert nu mu mel juuf suturaal na boppam ndax kenn kettalu ko pour indi koor kenn kettalu ko pour dëj pour macha allah alalam la ñu jël nii di ko dëj kon ñun sant nañu yàlla waaw di gërëm ñëpp wasalaam.